xëy sëñ ko yàlla di saf ak Moustapha ki nu am nan jëkki maasana xiim yàlla di saf ak Moustapha ki xiim xalilu laay bëgg a way baabul muriidu wa baabullaahi xulwatunaa dalilullaahi borom tubaay ka xam na mu doy bismillah ilaha illallahu mbër ma ko xam te xam suróom ba te xam xaqam te jox ko dee kookaa di Ibra Fall waa bil hulumil xulaa fal laa ilaha illa allahu wiitu rërëy moo tax ku lay bañtanaa bambaama doy kawe wut ku gëm sëriñ bamba day gëm lamp faf di ko roy moo tax moo tax ma jug di ko way ngir sopp kaa gën wóor ku koy xebet ak xeeb sa war a def na ko yayi moo fàkk xàll wi moo gëm bamba moo day jëf jaajëfe Seex Ibra Faal yow rek yaa ma tongoy yaay nuurullahi na yaa gis leer ga andi nu gis bu dul ko nag yow daliñ palamtu démb ba tey cheikh ibra fa nga nekk ak fa bambane soriwul yàllaa la ber foofa doom maasam ña teew ak ña cheikh ibra fa nga ne sab cër la yaaka yeyoo kaneen ku dul yow bu toogoon foofa day xaw a joy diggante sëñ bamba ak lampam ba daa xaw a sew tawaaju silmaxa doo gis mbir ya doo mën a ngoy te dëgg du xàmmee wuñ bu ñuul ak bu weex maandul ci diggante sëñ bamba ki lamp te wéy te dem jëfal yàlla ak yónneen ba bañu ko fay lu ngeen ci am mandu len ku maanduwul gisu ay na may yu rëy yam lamboo menn xel du ko daj te sañ sañam ba ca biir day xalak ak ray Cheikh Ibra Fall fa mu jekkeeg bamba xel du fa dem ab xol bu sellu te te leer moo yëg na salimun ko lamboo mbóot ya mooy mën may yenu ya may làmp faal xalilu xay la déy te taal bu di xam ak ay jilin ak doj ab da kon mandul te tub li nga mooy Cheikh Ibra Fall moo di taalub yàlla leer na ba daj kulal bila di ba daj àddina rend na rëy moo andi jàmm ji mbooleem diina jëpp ngi sab bu dul ko nag moom xorom day manqué démb ba tey cheikh ibra fall lamp fall khalilu yaa ka gore yaa kawe ya mandu mbootum yàlla sab na ba bëy ak muhammadu ak sayxul xaddim a xam kanen kenn mooy sa say mbir lam ci xam du lu rëy ndax faal ba ngay diggaloog sëñ bamba démb la woon moo tax ba tey ku la xam sëñ bamba bokk ko dey saw melokaan rek a li nga am kenn musuko am ci góor yi yàlla yaa may yaay diinullaahi te yaay quraanu Cheikh Ibra yaay salaatu yaay weeru koor ëmb nga diine ji dey moo tax ku lay weddi ngir julee ki woor kawewul bu kawe woon dina yëg ca lëmm mbëtt ma ngoy cër bi nga am rek a jaaxal góor ni sa cëre di Cheikh Ibra yow ku bañ leeru xorom dafa fay yaay maxrufullahi na yaay nuurul jalaal yaay nuurul jalaali te yaay nuurul xaqiqatu yaay nuurul wasiwlu ba tey mbooleem ku lay weddi ngir maamam ju baax ja mu am weddi ne maamam na sax maamam amul lu la may mbooleem ku lay weddi ngir sëriñ bu baax ba mu am weddi na ab sëriñam sëriñ si yow la nu roy yaa jiitu góor ñi te yaay baabu rijaali amoo rijaalullaay xalilullaay yaa gën a xay mbooleem ku di xutbu mbaa ab xaw su xam na la yow Cheikh Ibra Fall ku la réeree yàlla réer na ko tey baabu dalilu siraajullaay iswatuna baabu dina xàll yàlla yaa gën a wéy yaa baabu rahmati yaa baabul hudaa ku la moy day saf ku mooy yàlla ak yónnin ba faf mata rey Cheikh Ibra Fall yaa di nuurullahi yaa mata gëm mbooleem ku di teg mbooleem ku lay teggi du tegtal deful ku nu roy yaay tegtalub yàlla foo dëgmal yàllaa nga fa yow xalilullahi sawtun tekki ne wax ji ne day yàllaa la tegtal xabiballahi ahmadana yow nga tegtal nu kookee yàlla am na sa fay jasaaka yaa xillu Cheikh Ibrahima Fall karaman xayral jasa wa naa daari ne nañ la ko fay alhamdulillahi Cheikh Ibra noo ko cëroo moom it mu séddoo na nun Baay Faal yi xas nañu xëy alhamdulilahi ndéem lamp ngëneel ba fi woon ñooy doomi pas-pasam di jaamam mu fob dinu may baabul muridina xelullaahi rahmatuna huwa dalilu la si faaxat dalilul yowoy huwa almuridu la si faaxat muridu kamal fi zikri rabbika wal alul jalaalu ba woy huwa alxabibu la si cofeel ga jéggi na xel Cheikh Ibra Fall moo di sàmm yàlla bi fegu ay moo dijj ak yi naaxal fiir yu bon ya fi woon ba ñépp mucc mu wiit ak suñ borom di ko way moo fàkk xal wi neexal yoon yi bañ gën a neex mu gindi góor ñépp bañ xam yàlla ko ca xam ko ci way moo andi xéewal yi mbooleem jàmm ñi ñoo ngi gërëm jaajëfe Cheikh Ibra Fall buur yàlla am na sa fay alhamdulilahi rabban naafi an ikaman alhamdulilahi sukrullahi daa gën a yey ahadu yaa ahadun yaay ahadal ahada yaay kenn kennal borom tubaa mu jox ko doy Cheikh Ibra Fall jërëjëf yàlla nga bambaa nga naag jërëjëf ku ko waxul dafa joy cëy bàyyi Cheikh Fallou Fall faadilu faddala naa Cheikh Fallou saahir nga moo tax kenn du peese sa fay cëy bàyyi Cheikh Moustapha Fall yaaka andi njëriñ jàpp garab bi fi gën ndawal gi daj na ba tey cëy bàyyi Cheikh Talla Fall Cheikh Talla kenn du ni mel jàmbaari lislaam ji sayfullahi mbër la mu rëy cëy sa cëy bàyyi Cheikh Abdoulaye Fall Abdoulaye sa baay amul ca góor ña fi woon amul ci ñi nga di wéye jaaraama bàyyi sërif xasanu xusnu rida bàyyub sëriñ ku ko dakkee yàlla bal ba du moy jaaraama bàyyub sëriñ Aliou Fall Mbawara borom Mbawar faal sa day sa bàyyi li mu jëf ci diine du fay tey bàyyu Cheikh Modou Fall mbendaa di baadu rida Cheikh Modou mbend sa bàyyi ñeel nañu sant ko dey tey bàyyu Cheikh Mbacke Fall yaay ker gu sedd te féex seex Mbacke Cheikh Ibra Fall sa baay ba moo mat moy ngoy jaaraama bàyyub sëriñ Bachirou Fall bu sora Bachirou Cheikh Ibra Fall semmal na xaw suy way tey bàyyu Cheikh Abdou Sakkour abdan sakuran sa baay moo nu soxal ñaari njëmmiñ njëmmiñ lu takk du moy tey bàyyi cheikh sa cheikh ngunda fall saaliwu fall karaman borom ngërëm ya ca biir te bàyyi ba rekk a nu day jaajëfe cheikh ibra fall fall yaa yeyoo jërëjëf xéewal yu rëy li nga lamboo wal na fépp ba doy cheikh ibra nun nii ko séddoo nun la yàlla faral yoneen ba ak saaba yaak malaaka yaak noonu ngoy ñoo am lu kenn amul ñoo am ku kenn amul ñoo mas lu kenn mësul ba am ci tibiru doy ñoo daj ku kenn dajul ñoo gën ku kenn gënul ku ngoy siwul kii nu ngoy léegi mun a wuy sama ndey nun ngoy nañ ci nañ ci doomi maam sëy na bu jaay ci bu wér ka gétti góor ña ca baatu la ilaha ba way subhaana rabbika rabbul mulki wa samara walhamdulillahi rabbil ansi ak la ca way salaa wa sallama baaxin la asuudalowoo wal aali wa sax bi fii jàmme am gënu ay <laughs>